del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information jërë ngeen jëf yéen ñi safoo seetaan Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee saa su ne situation oblige ñoo ngi fii nag si marché Dior ñëw indi leen li nga xam ne nag mooy tendance su Korité naka la ñuy dundee li nga xam ne nag mooy wàccaayu Korité bi ba tax na rek dañuy dugg rek nuyoog suñu euh, internet bi nga xam ne moom lañ fi fekk suñu vendeuse bi nga xam ne moo ngi def filafilam bu baax def sumo la def xaw ma rouge la def xaw ma orange su paree dinañu wax couleur am papi euh, nuyu naa ñëpp di baalu ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo ñu safoo duñu seetaan TV. salaam. tur bi ah. waaw ci gis fi euh, ngay jaay ay tissus lan moo nekk tendance bi xale ah, yi moom ñu ngi jënd val brodé val brodé yi moo génn ci korite bi. Mhm. waaw bu dee góor yi moom côté filafil ak jasner be mbasin riche bi. waaw mais. ak qualité bu baax parce que fii mooy boutique bu Bamba wërgal képp joor yëpp xam nañ ko boo bëggee lu baax moom fii ngay ñëw muy super 100 yi li ma sol nii super 100 la. man maa ngi sol sama kooraay laa sol waaw sama kooraay laa sol xaaral ma jug taxaw ngeen xool sama laa sol. sama la sol xam nga da tey xam nga payet yaa ngi nii brodé yi. Euh, jasneer yi mën moom xam nga bu dee mètre mu ngi ci onze mille cinq cent onze mille. Mhm. mais yaar bi mooy jar dix mille wala dix mille cinq cent. mais maître bi moo gën a euh, nekk qualité te li nga bëgg ci ñaw bi di nga ko am waaw. waaw gel yi de moom ay sama koor ay rouge bële bic yooyu noonu xam nga événement day manqué. Mm-hmm. waaw val brodé yaa ngi nii. Mm-hmm. ñoom ñooy mettre 3000 mais ñun dañuy defal xéewal 2500 rek la mm-hmm. waaw 2500 lañ koy jaay val yu qualité. am na nag yeneen yoo xam ne contre la mais ñun moom original la ñuy dox ci original la ñuy dox waaw parce que Bamba moom buy wut bagage moom bagage qualité la bëgg xam nga moo tax. Hmm. naa yi payet original la payet velours lañ koy wax yooyu ñu ngi jar ci dix mille ñun ñu ngi def engrais bi huit mille moom lañ koy génnee waaw. waaw cherul rafet na. waaw te original la qualité la. mu ngi noonu jege na la laal ko nga xam xam qualité la waaw. brodé yeet vax yeet xoola brodé paquet 5 yaar yi yëpp a ngi fi fii moom boutique bi moom ku fi ñëw di nga am li nga bëgg yëpp waaw. waaw jëlal yëpp yëpp affaire yaa ngi ci kaw xam nga bagage moom yëpp a ngi nii ku fi ñëw moom am lu baax fii moom. vaccin yi nag seen naa yi ñu ngi nii Itaget original am nañ ay euh, wuding am nañ yëpp. wuding wuding ay 15000 la lañuy jaaye mhm. waaw si waaw. Mhm. bu dee kii Itaget yi yooyu ñu ngi koy bàyyee cinq mille gros. waaw mais 6000 lay jar. Mhm. affaire moom kii na jàllal ci Bamba moom mooy borom bitig bi. <laughs> waaw daanaka lu wax la daanaka lu wax rek tamit noonu la demee nag waaw maanaam place moom ren tendance xale yu jigéen ñi Val Boré bi nañ gën a jël xam nga Val Boré dafa dugal jour dugal finition waaw tailleur bi popeline kese lay jënd kanta góor yi mooy filafil anglaise yi moom lay ñëw costume africain yi waaw moom en plus tamit moom ñawam yomb na simple na parce que instant sa sax booy xool sa loolu waral sa côté jigéen ñi ren góor ñu dominer leen waaw parce que xam nga rek tissu bi ñaw ko gaaw na costume africain rek nañ koy laal waaw. fekkee pay tamit aussi dox na parce que cérémonie comme que léegi ubbi nañu affaire yi xew yeeg yëpp xale yi jigéen pay di nañ sol quant jees jesner bi moom korité bi tuuti tuuti lay dox. waaw tendance ren bi maam tabaski la. Mhm. am tabaski moom si la jees jesner moom mooy dox ak cuubu taq yi ak mbasin riche moom tabaski lay dox mais quant à bi moom ay super cent. ay falafel anglaise yi ak affaire yooyu ak brodé voile brodé affaire yooyu. mooy nekk tendance yi quoi. waaw waaw ren moom alhamdulilah ren moom moo tane daaw sa daaw xam ak confinement bi. te daaw ñoo liggéey par dimanche te léegi bàyyi nañu dimance ñoo ngi koy liggéey. looloo tax tamit ren dominé daal. Mhm. ah te nit ñi ñemewuloon ñëw marché léegi ñoo ngi ñëw si marché yi. waaw que par rapport daaw client yi ba dañu doon ragal ñëw ak Covid beeg affaire yooyu. Hmm. waaw ak tamit faat naa wax tamit soit pari bi aussi dafa dox. soit pari bi tamit dox la boobu ñoo ngi ko jaayee deux mille cinq cent deux mille trois mille ci loolu lay varié. waaw moo nekk ci entre waaw soit pari bi soit la boo xam ne day mule te dafa éclat. waaw boobu tamit tendance la. Hmm, bëgg jël nañ ko trop. waa grand bu wala robe. waaw gisoo ko ne gisoo waaw day fay rafet gisoo lii moof aubergine la ki mooy moof aubergine waaw rafet waaw mooy soit parin waaw <laughs> noonu la demee. asalaamaaleykum euh, mhm. waaw waaw gis nga. comme dañoo nekk période tàngaay moom da ngay soxla coupe carré bu ne muut sa kaw wala nga def frisé comme ñu ngi ci tendance nga def sa mi couleur bu ne muut gis nga ni ma ko defee def sama waaw mi ci couleur bu baax noonu la da koy laaj bu nekkee seddaay tamit nga daal di def sa cheveux bu gudd yaa ma gën a comme instant dafa tàng dañ koy oyofal rek yaa ma gën a xam def coupe carré waaw bu yem waaw man de blonde laa laa man moom laa bu blonde wala am na ñoo xamante bu gàtt def ko noir affaire yooyu noonu mais moom multicolore bi laalaal man blonde waaw mu ne muut waa def samay def yu baax moo fi jaar daal càmm bi nag mooy waaw day rafet waaw nga wonal ma ko interprète Dakar yi moo ngi marché Dior gis nga c'est jaayul baaxul lu rafet lay jaay lu lu lay laal yu baax de. yomb na. non Korité daaw bi nag moo gën a kii parce que xam nga ren bi moo gën a macha allah parce que daaw dafa tombé ak kii bi corona bi xale yi duñ mën a am temps affaire yooyu mais comme xam nga ren tombewul ak corona xale dinañ mën a def ba mu baax gën a mën a jël seen temps aussi. man moom kii laa gën a kii brodé waaw brodé xam nga jas ne day xaw a tàng te xam nga période korité dafay tàng trop ngay laa sa brodé bu oyof rek yaa ma gën a xam def sa felaale waa felaale ko bu baax bu baax bu simple ndax dafa tàng merci chérie kon ok ciao. ñuy wéyal rek li nga xam ne mooy tendance korité ñu fekk fii nag Ismaïla ci place am gis nga moo ngi def li nga xam ne mooy sil kii di def nag ay li nga xam ne mooy pose ongle papi xale yaa ngi préparé li nga xam ne nag mooy korité bi ki dafa mel ni veer la laal de. papi soo mënee jël ismay la moom moo ngi def li nga xam ne mooy crayon tatouage make up. Correctamente. def sa méykat rek. waaw. lan tax ah, dañuy essayer rek instant bi aw ma préférence mais dañuy essayer rek. ok boo. Dakar TV ah kontaan nañ ci yéen ah beneen saa yi ngeen dox ba fekk ngeen suñu place liggéey bi ñu ngi ciy bég quoi di ko rafetlu lool macha allah waaw ndax xam nga nit ku nekk amut xam nga lu dul réewam quoi ba benn instant gis nañ ne ndaw yi génn réew mi dugg ci gaal yi waaw ñooñu lu ñu am la ñu wuti quoi mais it suñ sañoon it ñu utee ko ci utine bu gën a rafet ñuy jaar ci yoon bu légal bi waaw loolu it nag gis nañ ko ñu ngi koy naxaru lool di ko ñaawlu waaw buñ sañoon daal ñu toog fii gaa yi ñafe ko affaire yi moom fii la nekk waaw am na fi quoi waaw mais ku ci yàlla tudd sa wërsëg pour nga dem fa it yaakaar naa di nga fa dem mais ñu dem ci ci anam bu rafet rek waaw ba ñu jël gaal loolu daal lay ñaax sama moromu jeunes yi quoi war na waxale na liggéey daal am na senegal waaw jar jar dara jarul xeeb quoi affaire daal boo fi nekkee góorgóorlu ci yàlla tuddee sa wërsëg benn instant yi daal waaw yàlla baax na daal après loolu daal laa amoon message boo xam ne moom lay laaj sama waaw moom lay laaj si jeunes yi waaw. waaw par rapport am nga daaw bi ak pandémie bi ñu hmm, feebar bi. Covid bi moo gën a moo taxawoon affaire yi taxaw ba benn instant nii waaw ñu ngi ci Covid mais par rapport ak xam nga ni mu demee woon daaw xam nga ak ren dafa wuute ndax daaw confinement bi kenn génnul presque moo taxoon ñu bëri ñëwuñ marché waaw ren nag gaa yi liberté am nga xam nga doomu aadama moom amul lu dul liberté rek la am boo ko xañee liberté am rek xañ nga ko léppam waaw ba tax na par rapport ak daaw ak ren moom il y grande différence waaw ren daal lañ ci gën a ne moo gën daaw daal par rapport waaw moo gën daaw daal waaw ok waaw noonu la demee daal ok merci waay. waaleykum salaam wa rahmatulah. Massamba Thiam. Massamba. Massamba mhm. nan nga dundee ambiance Korité bi ren bi par rapport ak bu daaw bi. waaw ambiance Korité bi daanaka sant rek par rapport ak bu daaw bi ndax daaw moom lim tombé doon ñëpp xam nañ ko. Uh-huh. te tendance su la. waaw garniture moom comme li nga xam ne client lañ ko soxla rek lañ leen di indil. Mhm. ay garniture ay garanti yi nga xam ne daal client dañ koy itteew rek ñun moom la ñu demee ndax client ñoo ñu fi bàyyi. coow sa xiir laa dégg. waaw coow sa xiir waaw. Ah. coow sa xiir mooy comme nii. Ah. garanti de bouquet yi nga xam ne lañu kii. Ah, garanti de métrage yëpp ànd client yi moom loolu moo leen fi moo leen digalal daal si Korité bi. waaw kon ah dama ñu euh, dama ñëwoon pour jënd euh, quelque garnitures jéem ko def si euh, suñu yére pour jéem ko defar ba mu rafet rek comme te korité bi moom mooy loolu xaalis amul mais nañ jéem a solu defarul rek toog comme nuñ ko daan defee rek. yow ban tendance moo moo génn d'après yow euh, brodé wala jesner. ah jël nañ jesner jël nañ brodé mais man brodé laa jël jëm ci def suñu garniture. Mhm. jëm ko defal ba mu rafet rek. waaw daal lan nga sant. Ah, waaw loolu daal lañ sentir ren bi ak bu daaw bi par rapport ak corona bi. ah bu daaw moom moom neexul woon parce que. kon naa bi dum tombeel ak couvre-feu bi yooyu noonu dañu sañse rek toog mais tey bu ñu soloo mën nañu génn tuuti def tuuti du duggaat suñu kër. Ah, kon daal yow soo sañsee génn def ambiance. ah bëgg nañ ko daal ah fu ñu mën a dem rek fu neex rek. ban couleur ban couleur ngay fële. ah mën nañ fël fël euh, ci couleur jaune. mën nañ fël blanc. blanc. waaw yëpp. Uh-huh. defar ba mu baax rek. ko jëlal ma bu ndaw bi. bi am na ñam de. waaw yëfu xale rek yëfu xale. pour bébé uh-huh. xam nga ñoom tamit si lañ bokk. Uh-huh. te faaw ñu boole leen si. déggal loolu papi loolu lan nga defar tey. tuuti dañ koy simple rek. Ah, ah, su diisoon moom papi kenn kenn jëlal ma xeetu garniture yi. ah gis nga. <laughs> waaleykum salaam. ci marché bi. marché bi tendance Korité bi ba prix cherul. prix moom tax koo cher noonu xanaa crédité yi ànd yàpp rek yooyu ñoo xaw a cher. jamono bi kilo kaane ban verte bi wala couleur bi. gàtt moom tax ko cer noonu parce que mi ngi génne en gros 1000 francs 1200. yooyu ngeen koy jaayee. ñun ñu jaayee 1500 transport bi ak baara ñu ne yi ngay fay. couleur bi moom mi ngi jar 3000. 3000 waaw. concombre 1200 1000 francs. yaay nag yow. ngeen xam ne li euh, ñu seera luñ ko xam nga ñun ñuy bàyyiñu ko dañuy dem jënd rek prix bu ñu fa fekk rek loolu la ñuy jënd te nu ñu jënd rek ñun noonu la ñuy jaayee. carotte bi nag jamono ji fi mu toll. carotte moom yokkuwul moom. kilo bi ñaata la. moom mi ngi génne en gros trois cent trois cent cinquante. ñu jaayee cinq cent am fanweer. fanweer waaw. lan moom ñu ñëw di waxaale léeg ñu ñëw waxaale jënd léeg am ñu waxaale dem njaay moom saan la rek ki nga déggul moom bu ñëwee rek amul benn problème ñëw. waaw d'accord caméra bi lay daw. njaay mi. njaay mi ak corona ah, moom Sénégal jeexal nañ ko pour ñoom moom corona jeex na ah parce que affaire bi yàgg na yàggaay boo xam ne nii xam nga heure bi daaw moom boo gis mi ngi fatam fatam parce que heure bi daaw 9h la Macky Sall maye woon 21h ah. 20h marché yëpp presque arrêté nañ. ñu nekk ci mbedd yi mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg dem te amuñu oto xamuñu ni ñuy def te mënuñoo fanaan àll ñooñu ñoo amoon mais ñun ñi nga xam ne fi ñu bi 9h génn nañu marché bi dem ci suñu kër parce que daf ñu arrangé daaw daf ñu arrangé parce que nit ñi population bi xam nañ ko dañoo teel a ñëw def seen juin yëpp def seen assa yëpp avant 20h ñëpp pare nañ daf ñu arrangé parce que jaay nañ suñu ndugg ndugg mi jeex clients yi am li ñu bëgg ku nekk teel a dem noppalu toog sa kër noppalu. fàtte woon si ñaata la toll. moom tamit seeru moom yokk ñu ko. kilo bi ñaata kilo ñu ngi jaay 800 900 ñaari prix yooyu am bu dee Malika bi 1000 francs la. Ah, bu dee Malika bi. waaw bu dee Malika euh, daaw moo gën a bokk. Korité daaw moo dàq. Korité daaw moo ah, dàq waaw parce que dañoo teel a wàcc noppalu jaay bagage parce que ci wàllum bi. wàllum koppar xam nga instant yi marché bi yëngoogul noonu bagage gis noonu instant yi ah loolu lañ wax de am na sax dégg naa ñu ne julli nañ tey ndax ay fey la ay malek ay yooyu waaye korte bi dëgg-dëgg moom suba la moom moom tey la commencé jëm suba man soxna ñaan laa tudd. soxna ñaan fii si euh, waaw. prix ñu njortoon ne dina wàññeeku waaye fu moom yokkuwul moom yokkuwul moom. kaani couleur rek ñoo xaw a cher ak concombre ak tomate bi. laaj bi bi si loolu na ko wax de. papa bi dina ko de waaw non laaj bi non cherul pêche chinois aussi cherul pain yooyu xam nga ñoom ñooy marina affaire yi. waaw après nga def épicier yooyu. xam nga boo gisee euh, bi metti ginaar moo amul. ginaar cher na. ginaar bari si gën a tuuti ay 3000 francs ginaar yi baax yi dëgg dëgg dëgg 4000 5000 lañ koy jaayee ba 6000 waaw ñi ngi rànguwaat 5000 dañuy jaayee 6000 xam nga loolu boo ko bëggee jënd jënd yi muy àndal ak yi koy uh, garniture yëpp xam nga loolu day metti loolu tax mu metti waaye situation moom ni mu ñëw rek jàppe ko noonu rek parce que lu la tiim lu nekk rek jàll na waaw parce que fekkee waral njàmbat ñu fekkeewul jàmbatuñu kon di sant yàlla rek alhamdulilahi rabil alamin lu nuyu suñu waa marché Dior yëpp nag Fatmata Ablaye meen na koy gay ñoom bala bay la ñoom madame Sila Mariama Ba Fat Camara Ahmed Cissé ñoom ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di nuyu madame sama xarit Thiès di Abbas Kane Elaz Kane Ba sama doom Aïcha Diallo sama doom bi ñuy wàccee si la Diallo ñoom lay Diallo ñun ñëpp samay niti bopp lañu kon maa ngi ziar ñëpp di leen jëfal bu baax a baax kontaan naa ci yéen waaw kay. salaamaaleykum sëñ Ibrahima Xalulaay Ngom. Ibrahima Xalulaay ñu ngi la fekk fii si marché fi may wax ak yow ni moom changement amagu ci bagage yi quoi soble 300 pomme de terre 400. waaw soble bay bi la wala importé. non non local bi la. local bi waaw. léegi pour meew wayal bi quoi. 2300 ren moom moo tane puisque ren moom ñu ngi ni fête dina am quoi mais xam nga daaw fête amul woon quoi. waaw daal ñu ngi sant yàlla ngi sant yàlla ki ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk. ki ñaa ngi ñëw waaw loolu kay moom jëru sax ñu koy wax parce que daaw Covid moo ñu xawoon laal quoi te ren déconfinement bi ak affaire yooyu noonu xam donc ça a bien joué sur le rôle de ci marchandise yi quoi. effectivement trois cent daal cent jàpp ñu jàpp bu mag. non non non. Ah, a jàpp ah xanaa di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak rek di wax client ñu ñëw xam ñu liggéey quoi waaw. ndax dañoo bëgg. waaw maa maa gisagu naa sama bopp quoi. internet Feeling Dakar li lañ leen indiloon ci li nga xam ne nag mooy euh, tendance su Korité fii si marché Dior ñu joxante dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. del déglu del xool Feeling Dakar site lay jox information yu leer